doore ko nag eh, ci maladie tëdd ci hôpitaux yeeg ñi seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atti leen ci yërmandeem jégal leen seen i bàkkaar <clears throat> kilifa diine yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan gu ànd ak wér mboolem xalif généraux bu fi nekk ak mboolem kilifa diine bu fi nekk rek ba ci sunu mbokki chrétiens yi sax ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye <clears throat> di leen ñaanal jàmm di sàkku ci ñoom itam ñu ñu ñaanal jàmm jàmm joojee yàlla dal ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite di suñuy kilifay aada ndax seen jàmm mooy suñu jàmm kon yàlla na yàlla defal leen jàmm moo xam nguur gi la moo xam ku jégi la ku mu mënti doon rek ñu ngi lay ñaanal jàmm jàmm jooje yàlla war ko ci Sénégal gépp képp koo xamante ni rek jamono bi yaa ngi fi yeewoo maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ñaanal yaa xam li la teree nelaw yàlla na ko sunu borom saafara saafaraal ko mbokk yi nga xamante ni jàpp nañu ne seen wërsëg ci biti la nekk maanaam sunu way émigré yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan itam la leen tax ak génn rek ci teef bañ cee am waaye ànd ak lu mën a xew itam yàlla na yàlla delloo siwaat ci seen réew parce que ni nag ni ma koy waxee saa su rek xelu tukkikat boo ubbi rek da nga cay fekk bëgg a ñibbi kon yàlla na ko yàlla yombal mu doon nag ci seen sagos bopp ñu ñëwaat nag niñ koy defee rek ci koor gi xam ngeen ni jamonoy koor la ñu nekk ci biir seen émission kër gi euh, version cor gi sax laa koy tuddee ndax tey jii wax dinañ waxtaane lu jëm ci war wàllu koor ni mu war a def nit waaye itam surtout wàllu social daaw nag gis naa ne yëf yi bari woon na lool lool lool macha allah social bi bari woon na torop torop ren jii nga xamante ne nag ñu ngi bëgg a miin corona bi gars yi wàññi nañu seen loxo loolu la ma mbokk wax démb donc dinañ ci ñëw waaye nag balaa may sori dama rey rek présenter samay invité euh, kenn ci sama càmmoñ ñu di ko wax alwalit euh, alwali Badara Sow ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko dalal ci biir kër gi di la bàyyi nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan. Euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi ddin mbokk ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak taysir di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu jàmmi àddina ak jàmmi alaxira Adja Mbaye gannaaw ba ñu sant borom bi mhm. ñu ngi am mbégte ak kontante ci ñëw si plateau bi nga xamante ni moom mooy plateau kër gi mhm. mu nekk plateau boo xamante ni yàgg nañ ko suivre mu nekk plateau boo xamante ni tam yàgg nañ ci itam bàyyi xel macha allah surtout ment nag ci jamono bi nga xam ne ñuy defee nga ko ci muy jamono ramadan al mubarak mhm. mu nekk weeru koor mu nekk weeru barke weeru leer weeru alquranul karim macha allah kon ñu gi nuyu mboolem Sénégal ñi nekk ci diaspora bi ci adduna ci monde bi yéen ñu ngi leen di ñuy tël leen di ziar mm-hmm. di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla ñeen yàlla leen incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahuma amin ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, ci sama ndijoor nag ma dal fi un jeune ndaw loo xamante ni macha allah loxoom set na war naa mën a bokk ak mag ñi looloo tax ma dem ba Thiès jëli ji ko parce que nee naa leen damay bëgg talent xale yi ñu di ko génne ñu xam ne Sénégal du safaan rek la am ndax souvent li ñuy gis ci tele yi mooy xale ba def na lii séddale partagé ci réseaux sociaux yi def na lii sumeeku na nangam sangam mais ci ruq bi am na xale yoo xamante ni macha allah fu fa tabarakallah jar na nañoo wane su ko defee ñu doon exemple loolu lañ ci jublu ba tax na maa ngi nuyu jantal Mara. di ko waaw effectivement xale yi la <laughs> ndeysaan ayca alhamdulilahi rabil alamin mm. alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mm-hmm. fa xamdan lima xalaqa alxalaa'iqa wa amarahum bil ibadati allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufaan ahad wasalaatu wasalaamu ala fatixi alqaatimi annaasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim allazi balaqa wa arshada wa amarana bilmahrufi wannahaari an ilmunkar sallallahu alayhi wa sallam mhm. wa radiyallahu an barzaqi almaxtuumi taaji alaarifin mumibdu kulli awliyaai rahman xafidu rasulullahi barzaqu lbaraziqi maulana ahmad atijani mm. wa radiyallahu an jaddina wa wasilatina wa walidina alwaliyu l akbar walxawsu l ashhar sayidina wa maulana cheikh sidi xaaji malik mm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokku téléspectateurs yëpp yuy safoo kër gi mm. la 2STV mm. di leen ziyaara bu baax nuyu waa Thiès bi ma jógee mm-hmm. eh, nuyu waa Som nuyu bu baax a baax soxna Maminata Sow Aminatu bintu Wahbin ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrata umul Mustafa al alami mu tegal ma ko ci loxoy waa Som yëpp Mm-hmm. nuyu bu baax waa Kawsara jiital yu chef de quartier bi ndax wa abwal bu yuuta min abwaabiha mm-hmm. nuyu chef de quartier bi nuyu alxaaji Moodu euh, Kawsara xaaji mm-hmm. Moodu Nasru xaaji Moodu di ko ziyaara bu baax a baax ziyaara istimdaatiya xaaji Mbaye mi ngi noonu mu ngi nii ñu ngi si la 2STV nuyu bu baax ñëpp ko xamante ni yaa ngi seetaan am na solo am na solo bu baax a baax macha allah nuyoo bi rek euh, daaneel na ma mais euh, turu jantal mara Euh, Mbaye Babacar Babacar Ndiaye la non. oui ñu def Dental Mara. am na sax vrai nom boo xam ne mi ngi ci suuf boobu dañ koy bàyyi euh, lu waral euh, mbay Babacar bi. waaw Mbaye Babacar bi. Mm-hmm. ak Dental Mara bi. Mm-hmm. Mbaye Babacar d'abord j'aime Serigne Babacar. L'homme au bonnet carré et au manteau vert, le sourire légendaire, c'est l'embassy de tous les apprenti carabes, c'est ce beau de accroche à toi pour ne pas tomber. Maï mm-hmm. Serigne lay wax. mooy borom daayira beeg daara jeeg dara jeeg limousine bee sa maam ne loo teg ma dikkam ma dem mm. di bàyyi Serigne Cheikh Tidiane si almaktum borom nahnu awlaadu tijaani min xubbuwaatil maani way fa ilayka yab na muhammadin laa daani jàkkaarloog sama turandoo mi nag ne ko abu naa abu bikirin mm-hmm. ma judd rek bëgg ko ndeysaan je ne sais pas xamoo lu ma je m'appelle Mouhamad mon la ma sama papa tuddee ndeysaan waaye nag sama lépp Serigne la ñu tuddee la ñu may wax Mbaye Babacar. <laughs> loolu dara loolu dara fay ko incha allah daan si jantal maaraay. incha allah incha allah. incha allahu taala mu ngi noonu mbokk yi 60 88 euh, euh, la 628 14 13 vraiment mooy numéro bi ngeen mën a àndandoo ak ñun ci émission bi rek seen émission kër gi waxtaanee wàllu dimbalante te yàlla tax waaye waxtaan itam. wàllu jikko yi nga xamante ni war nañ ko mën a am euh, ci weeru koor gi bu weeru koor gi jàllee itam euh, ñu gën ko wéyale yaakaar naa alwali euh, question boobu moom yow laa koy jël cërale lekko ndax macha allah fa tabarakallah xam-xam bi moom kenn dootu ko nattable weeru koor gis nañu sama classe gi koor gi dañuy sellal dañuy def ba mu baax te koor gi am na jikko yoo xamante ni moom la ñu war a bàyyee jeexital yoo xamante ni moom la war a def ci ñun loolu noo koy jàngatee. subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim Adja Mbengue comme ni nga ko xamee borom bi subhanahu wa taala dafa nekk ne lépp loo xamante ni sant na ko doomu aadama fii ci àddina moo xam julli la moo xam woor la wala azaka la wala bépp jaamu yàlla goo xamante ne borom bi subhanahu wa taala yaani digal na ko doomu aadama rek am na doomu aadama bi la muy am ci njëriñ la mu ciy njëriñoo moo tax su fekkee da nga ñëw ci wàllu koor borom bi subhaanahu wa taala dafa ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam mhm. kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun borom bi subhaanahu wa taala mu ne yéen ñi gëm yàlla mhm. gëm yàlla gëm alaxira gëm yonente yi gëm téere yi gëm ndogal mhm. yooyu yëpp borom bi subhaanahu wa taala mu ne kutiba man yàlla faratal naa faratal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci xeet yeleen jiitu woon mu mel ne dañoo posé yàlla ban benn question ne ko lu tax nga farataal ci ñun koor mu ne laallakum tattaqun ndax ngeen amee ci ragal yàlla mm-hmm. kon ndegete ragal yàlla nit ki ak ragal yàlla mënta mot mm-hmm. moo tax julli day renforcer ragal yàlla woor renforcer ragal yàlla azaka xani bépp jaamu yàlla goo xam ne yaa ngi koy def rek yàlla dala ka pour nga charger li nga xamante ne moom mooy ragal yàlla mm-hmm. borom bi subhanahu wa taala dama ne école la boo xam ne yàlla moo ko tijji mm-hmm. pour doomu aadama yi def ci benn formation ngir bu ñu génnee ci koor gi am benn diplôme boo xam ne moom mooy diplôme ragal borom bi subhanahu wa taala moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam mu wax ci benn xadis mu ne ida daxala ramadan futiha abwaabul jinaan mm. yonente bi alayhi salatu mu ne mm. su fekkee ne weeru koor dugg na mm. yàlla ubbi bunti aljanna ani xadis boobu ni ñu koy dégg ne lépp loo xamante ne mën na yóbbu nit ki aljanna dafa yomb ci moom moo tax da ngay gis comme ni ko waxee léegi weeru koor su ñëwee naafila day yomb julli day yomb azaka day yomb jokk day yomb yaani def def lépp lu dafa yomb lu tax parce buntu ba lañ tijji buntu ba lañ tijji waaw yenente ba man ni ko doon déggee buntu àjjana dañ koo tijji mooy ko ne ku dee ci weeru koor gi àjjana nga jël directement la sama réer gi yàgg na ah c'est ça ñu bëri dañoo foog ne yàlla dinaan këccët këccët bunti aljana ci jikoo déedéet ku dee ñëw dugg déedéet du loolu li firi mooy ne buntug yombal nañu buntug aljanna yàlla yombal na buntug dugg aljanna mooy jantal mara loolu garaaw na de moo tax yenente bi wax ci benn xarit mu ne hmm? wa uxliqat abwaabu niiraan ñu tëj bunti safara yi fi mu nekk danse ni tëj na Mm. baar yu si bëri tëj na. Mm. Euh, discothèque yu bëri tëj na. kon bunt yi nga xamante ne nit ñi saison bi daal tëj nañ ko saison bi nga xamante ne xëy na nit ki ñi nga xam ne dañoo. yaani euh, mel ne man ci sàggan mm-hmm. yaani seytaane daal leen këf jaar leen foofu ñu tëj buntu yooyu mm-hmm. yonente bi teg ci leen mu ne wa suffidati sayaatin mu ne ñu daal di jéng seytaane yi am beneen xadis yonente bi alayhi mu ne wa sulsilati sayaatin ñu ceene seytaane yi mm-hmm. moo tax borom xam-xam dañ naan képp koo xamante ne ni mooy na yàlla ci weeru koor yàlla da koy multiplier lu tax parce que yow yaa ko def à ton propre gré xëy na ñu bëri tey ñu def ay makkaar. Mm. mais bakkan topp bakkan am na ci adduna am na ci seytaane am na ci. Mm. te yooyu yëpp na weer ko si ñëwee dañ koy éliminer. kon bakkaar bi nga xam ne daf nga ko ci weer koor yow personnellement yaa jël engagement defal ko sa bopp. donc dañ lay doubleel duma yi. dañ koy doublé non ñetti weer yi. boo boo ci defee lu baax. dañ koy duble d'accord ñetti weer yi. ku ci def lu baax dañ koy multiplier ku ci def lu bon dañ koy multiplier. mooy weer yi nga xam ne moom la tuddee yàlla tuddee al ashhurul xurum yàlla mu ne weer yi dem leen a wekk bu leen ci tooñ seen bopp loolu yàlla wax ci alquran fala tazlimu fihinna anfusakum ci tooñ seen bopp mu doon lu doy waar Pape Maye nañu xoolal téléphone bi su ko defee rek gars yi mën a euh, euh, wala numéro international bi euh, ngir jàppale ko sama ñaari gan ñii ma dalal tey jii macha allah fi alwali ubbee am na solo waaye jantal mara ñun jeunes yi de eh, bi ñuy nekk jeune. na man léegi moom maire laa yéen jeunes yi sax laay wax euh, dañ daan wax ku dee weeru koor ñu ne mën nañu ci rafet njort weeru koor la dee ndax dañoo ubbi buntu àjjana yi ndekete demeewul noonu demeewul noonu de allahu akbar xam nga chahru ramadan allazina mhm. unzila fihi alquran mm. huddan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan fa man shahida minkum shahra falyasumhu mm. wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatan min ayamin ukhar Oustaz wax na ko léegi fa dama leen a bëgg a sax ngeen def débat waxtaan yéen ñaar. parce fi ngeen dugg sori na boolewu leen. déedéet tey boolewuñ depuis les amis de Arouna Dia. waaw nuyu de passage soxna muslimata la coordonnatrice. nga xam ne lu mu dox ci lu baax la. fa tabarakallah di ko ziar bu baax a baax moom ci Italie. Mm-hmm. donc Oustaz weeru koor ngi noonu. Mm-hmm. nekk weeru promotion. Mm-hmm. kenn ku si nekk war si profito. war cee lépp lépp xam nga ko ci ay bàkkaar mm. nga fexe mën ko si jële waaye tamit lépp loo xam ni soo xewoon nga ko si sa wàllu jaamu yàlla mm. nga fexe ba mu yokk c'est tellement important dëgg li nga tëlee woon ci jàmm yàlla mm. dafay def formation accélérée ci chahru ramadan ci weeru koor bi boo daan julli farata kese léegi yaa ngi julli teg naa fi la yaa ngi def formation après naa yaa ngi def safa witr mm. donc yooyu noonu ngay def noonu mm. su weeru koor jotee rek da ngay obligé naf not sa jéem ko maintenir pour mu gën a yokk mais dafa am jeexital yoo xamante ni tam duñ ko def ci ñun parce que seen classe gi fi mu ne bi koor gi desee quelques jours rek dañuy tëj saison bi <laughs> tëj saison bi dafa am nu koy manifester effectivement tëj saison bi moom ay ci alwali boo amee loo ci dolli lu ngeen waxtaan débat la foofu man eh, li ma wax rek mooy ne ni doomu aadama yu bëri mm-hmm. ñu ngi woor te seen koor du leen jariñ moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci benn xadis mu ne rubba saaimin laysa lahu min siyaamihi illa al juu wal atash ak a bëri koy woor mm. te kooram nga de jëlewu ci lu dul xiif ak mar mm-hmm. mu ne tam wa rubba qaa'imin laysa lahu min salaatihi illa al-futuur yaani aw maana al-hadiis Yonent tam koo xamante ni mu ngi naafila guddi mm-hmm. naafila guddi mais amu ci lu ak coon ak ñàkk law mais xoolal yéen doo woor fanaanee julli te amee wu ci lu dul ak ceeb coono lan moo tax parce que intention bala moom moo sellul. ñu bëri tey ñu ngi wóor parce que su ma wóorul nit ñi xas ma. Mm-hmm. mais est ce yaa ngi ko def ngir yàlla. ngir yàlla sunu borom. est ce que avant ngay dugg ci weeru koor. Mm-hmm. yaa ni ñëw nga ci kanam yàlla nga représenté yàlla say bàkkaar ne yàlla ah man sa jaam bu bi. Mm. sa jaam bu tilim bi sa jaam bu doy kat ñëw na de. te sa weeru promotion ñëw na te yàlla bëgguma ma nekk mahrum bëgguma ko nekk koo xam ne da nga maa xañ ci sa tuyaaba mm. yàlla jégal ma say samay bàkkaar loolu ci commencement koor gi lañ ko war a ci commencement koor gi nga war a def na nii ah non weesoogul parce que eh, laa tax mu toll yàlla ma yeggee mën mm. <laughs> ma yeggee jàkkaarloog borom bi mm-hmm. waaw wax ko li ma ko bëgg a wax yëpp mbokk ngi noonu ci ligne bi allo allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay ziar aleykum salaam wa rahmatullah da wàññi télévision bi ñu wax ci téléphone bi s'il vous plaît. voilà allo allo. voilà ku dugg da ngay wàññi sa télévision ba mu jeex ñu wax ci téléphone bi sinon kàddu yi dafay rawante su ma yeggee dinaa ko def dégg ah. yéene ji moom nit ñi dañu yaakaaroon ne danga maa ngi fas yéene wooral suma boroom yéene eh, am yéene woor weeru koor gi yëpp soo ci dogee ci diggante bi boo paree nga dellu si waat amaat yéene yeggale weer bi man foofu laa ko foogee woon waaye xamoon ni c'était beaucoup plus profond que ça yéene moom boroom xam-xam ne dañ wax ñaari wax mm-hmm. am ñu ne ndax nit ki dafay yéene ab fas nga ne fas naa yéene doo ko wax si sa làmmiñ ko fas ci sa xol ne fas naa yéene mm-hmm. woor weeru koor mm-hmm. am ñu ne déet loolu de baax na waaye est-ce que yàlla dina la fi bàyyi nga wee nga nga dund ba koor gi jeex ba koor gi jeex mooy jant bu fenk rek bis boobu nga ne fas naa yéene woor tey mhm. bu jant ba soyee nga ne jàllal nga ne fas naa yéene woor suba woor suba soo waraatee bu jàllee jàll na mais loolu moo mooy li gën mhm. waaye itam bu la neexee nga daal di globaliser ne maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma fekkee weer bi su ma ko fekk itam ñaan naa yàlla ani maa ngi am yéene woor ko ayca euh, jantal mara innama a binniyaati innama amalu binniyaat comme ni ko yonente bi alayhi salaatu tabarakallahu koor moom dafa bokk ci loo xamante ni buñ buy teru si mhm. am na ñu koy gàttandu mhm. am na ñu koy gatandu ñuy gàttandu waaw woor pendant une semaine mhm. koor gi ñëw nga enchaîné ak moom teralee ko Cheikh Ramadan mooy mooy ñi sant saw mooy ñi sant saw waaw ñoom dinañuy dinañuy koor ñu ko munul tamit. Mm. fa tabaarakallaa te xam ne vingt neuf jouri rek la ñu war la yàlla. Mm. ba trente jours mm. bu ko defee bu fekkee ne ñu ngi séenu. bañ ne tey la ñuy séentu séentu mu njëkk. nga yéene ni de. man de fas yéenaa woor weer wi. wala ni ko Oustaz waxee fa tabaarakallaahu. bis bu yàlla sàkk rek nga yéene woor suba. nga yéene woor suba. incha allah neel mbokk moomu allo. mbokk mi asalaamaaleykum wa allo. waa dafa mel ni rëcc na euh, ñu ngi leen di xaarandiwaat euh, ñu def ko nànk nank rek su ko defee euh, mën a dugg indi seen xalaat ci li nga xamante ni moom la ñu yëkkati tey muy thème bi jikko yi nga xamante ni moom la ñu war a amee ginnaaw weeru koor gi ak jeexital gi muy def ci ñun. dégg naa sax ci sunu classe sama classe gi nga xamante ni ñoom may ma ba ma ndog ba pare lii moom basang gi ba la ko fee mën a tàllal xaar ba ñu ba pare pour war a mën a jëw. Eh, bu ñu ndogoo ba pare nga war a mën a jëw eh, defe naa ne eh, jantal Mara jëw jëw bokkul ci dundu jullit de. déedéet jëw. Mm. wax loo xam ne sa yoo nekku ci. Mm-hmm. bokkul ci yëfu jullit. bokku ci nañ ne mbokk moomu allo bu noppi allo. allo salaam wa rahmatulah. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. waaw tur ak fay woote. man la bu sëñ Babacar. maman Mati bu sëñ Babacar. ndeysaan maman Mati waaw bismillah yow rek li ñuy déglu ma bàyyi la sa doom. waaw bàyyi ma jantal Mara. jantal Mara. ndeysaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam baax a baax baax maman Mati. waaw Mbaye Babacar. ah moom sama maman la. mu nekk rond point HLM bu Tëngéej maa ngi lay bu baax a baax. kii kontaan trop kontaan trop ci invitation ñoo gën a kontaan merci. macha allah di la ñaanal rek. ñu di la dégg partout dans le monde entier. amiin amiin amiin xale bu baax nga xale bu yaru nga xale bu bëgg xam-xam nga kii soxna Mbaye. mu xabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. mu nekk fi secrétaire général nag. Mm-hmm. waa nekk xale bu yaru bu baax. bu bëgg xam-xam. ndeysaan macha allah. bu bëgg a diine. ndeysaan. macha allah di ko ñaanal rek ñu di ko dégg partout dans le monde entier yàlla am na ko mën na ko lu ko yombala yàlla na ko yàlla def. amiin amiin amiin amiin. barke Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf mama Mati. di kontaan lool lool lool lool. ñu ngi lay fay nuyoo ñu ngi lay fay nuyoo bu incha allah. waaw bu baax. Mati. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni yaa nga foofu ci diwaanu Tëngéej. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaar waaye ma dellooti rek fi nga xamante ni mooy euh, foofee ca Kër Massar ñàkkurab euh, euh, nuyu fa bu baax a baax laa ren du bazin muy Kati jaaraat fii macha allah dinaa ci ñëw ci numéro téléphone am di 77 352 62 50 cent 352 62 50 moo jaar fii macha allah jaarati sax laay wax ci basin bu baax bi te moom buy dagg du doyal dinaa ci ñëw incha allah mais nag euh, jeexital yi nga xamante ni koor daf ko war a def ci ñun bokk na ci itam xeetu dimbalante alwali dimbalante te yàlla tax te ñu gis ne loolu dafa raar ci lii nga xamante ni moom mooy jamono bi euh, wax naa ko sànq sama classe gi dañuy bàyyi ba ñu dog ba pare ñu naan may ma rek ba ñu dog ba pare bu ñu naaneem ndox moom bu soobee yàlla basang gi bu ñu mën koo tàllal xeetu jëw ak yooyu euh, kii mi ngi ci woon jantal mara mais dama la ciy jox foofu ba pare laataañ ci dellu si ak moom waa Adja Mbaye xam ngeen ne borom bi subhaanahu wa taala li mu bind yëpp ci cër yi nga xam ne ñoom ñooy cër yi nekk ci doomu aadama mhm. yonente bi alayhi ci benn xadis mu ne mm. ku ma garantil diggante li nekk ci diggante ñaari tuñam mm. garantil ma li nekk ci diggante ñaari tànkam ba du ci mooy yàlla ma garantil ko aljanna ma hmm? garantil ko aljanna moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu waxee loolu. waaw dimbali mbokk moom ci bi ne ko allo. allo allo. allo. asalaamaaleykum. soxna Mbaye ñu ngi ziar. waaw ah, ñu ngi delloo ziar bu baax waaye. la jiwaat 100% ziar. ah waaw 100% euh, jeunesse des Tidianes. Mhm. je suis waaw jiwaat 100% jeunesse des Tidianes. macha allah ziar bu baax a baax. Mbaye Babacar ziar nañu la. Mhm. Birane Mojimo. waaw ndax man la jiwaat jiwaat. jiwaat maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. ñu ngi delloo ziar wér. naka xarakaat yi. alhamdulilah. ayca bismillah. yaa ngi kontaan ci émission bu baax. macha allah macha allah. di ñaan yàlla nga leen dégg partout dans le monde. amiin yàlla mën yàlla defal. amiin yaa rabbal aalamiin vraiment dañoo kontaan tey mënuñu wax sax jërëjëf. <laughs> toog toog ko. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waay jaar am na solo jërëjëf. dinaa ci ñëw lan moo la motiver ba tax ngeen taxawal lu mel nii xale yi nekk ci bopp koñ bi nekk ay kaboy lu lang ñu jël. lu génn ñu dogaale loolu doolu ci kanam laa ciy ñëw bu ma bu ak paree ak wàlli alwali ah. mais dafa tollu woon fu am solo ah. euh, ci euh, euh, wàllu koor gi ak yooyu waaw waaw damay wax ne doomu aadama dafa bokk ci li nga xam ne moo gën a gaaw a yóbbu nit safar muy làmmiñ mm. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee loolu benn saxaaba bu tudd Abdullahi ibn Mas'ud mm. def ne ko yow yonent bi ndax yàlla def ñuy jàppee li lii génn ci sunu làmmiñ yi mm. yonent bi ne ko thakilat ka ummuk yow de yàlla la sa yaay ñàkk wa hal yukabbu nnaasu fi nnaari ala manaaxirihim illa xasa illa xasaidu alsinatihim mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko waayu abdallah xanaa xamoo ne bu yowmal qiyaame li tax ñuy dili nit ñi ci seen xar kanam yi ca safara mooy la ñu góoboon ci seen làmmiñ ci àddina te yàlla da kaa wax ci alquran mu ne maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn kàddu guy génnee ci yow lu dul ne benn malaaka enregistré na ko écriture am na beneen malaaka boo xam ni enregistré na ko audiovisuellement ni ñu koy waxee. kon amul lenn luy génn ci sa lu jël na yàlla te moo tax yàlla dañ ciy xisaab yawmal qiyaam moo tax. ñu jël mbokk moomu ci ligne bi kon ñun suñu message texte yeeg audio yi. lépp yàlla wax nañu ci alxuraan ba pare. inna lillahi ay eh, ñun fuñu jëm. mbokk asalaamaaleykum. waaw soxna si. waaw sama sëriñ maa ngi lay ziar. ñu ngi ziar di ziar mi ngi lay delloo ziar. El Hadj Omar Diakhaté kaw Sarafal. Omar Diakhaté. moo PDG. waaw ndeysaan ñu ngi lay nuyu. ku baax a ndeysaan ku am diine ku xam baayam ndeysaan xam ne noonu la man a mel mm-hmm. man mii nekk na ma moom yor naa ko mm. waaw ñu bokk benn entreprise bu doon liggéey waaw mais ku am diine la defe naa ña fa nekk ñëpp moo leen mujj xirtal ci lépp ñoo xam ne jànguñu woon sax moom mu leen jàng mais loolu nan la la def ak jeunesse bi fi mu toll jamono bii li ñuy dund non mooy moom nag mooy royukaay royukaay la moom mm-hmm. te Cees gi ñu nekk ñu baree ngi roy ci moom dëgg la ndax du tàngam lu kenn du tàngam lu kenn du tàngam lu kenn. ndeysaan macha allah. tey ji sa invitation bi xam naa nit ñee ko yëgul waaye kon 2h dina toj tey. dëgg la dëgg la ndeysaan. man léegi nit ñi ma jàppee télé bi laa commencé di wax ñu bëri leen bàyyi na ci télé bi. ndeysaan. nit ku baax la yooyu it xam naa ne soxna si. waaw. yaa xam ni nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal. allahumma amiin ñu bokk ko. moom it maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram. ndeysaan amiin kooku mu bokkal plateau bi xam rafet na trop. alwali waaw macha allah moom moom bi daan ne fekk ñu nekk tafsir ci jàkka ji nii. Hmm. waaye kon kilifa yu bari nañ dugg ndax Ndeye Babacar. ndeysaan ndax man nekk na ma ak moom nekk na ak moom bëccëg. ndeysaan. te nit ku baax a baax baax. jërëjëf jërëjëf borom Kawsara. waaw yal na leen yàlla defal jàmm. allahumma amiin ñu bokk ko. seen télé bi nag télé référence la. ah. seen télé boobu moom mooy télé référence. waaw ñun ci yooyu la ñuy dox. yéen a man ñëpp yéen yéen direct sax yéen a ci man ñëpp. kon yaa ko wax waa gis nga. <laughs> man jaxate maa waxoon El Hadj Oumar direct moom yéen a ci man ñëpp. lool lool lu leer la moom. moom kay déggoo man la lu xew dama naan a ci sut. amatul werante. du ngeen tag tagal du ngeen def dara lépp a baax. macha allah alhamdulilah kontaan nañu. nee ko nee ko ne ko DG ñëpp a ngi koy nuyu. ndeysaan ay ñoom Baye Fatick ñëpp. ndeysaan kontaan nañu bu baax. aywa nekk leen ci jàmm mooy seen euh, télévision la 2STV macha allah ñu ngi kontaan bu baax a baax ci euh, noonu ñu ñuy sargale te it nag loolooy li fi nekk nag dama ko daan wax souvent rek nii laa mel jarta dem jàkka jarta giñ diwaat booy def rek tata bàyyi noo ma ne nu xam loolu yaakaar naan loolu ma wax diine bañu ko ma euh, ci ci jamonoy weeru koor gi waaye ba tey ñu ñëw ci wàllu jikko yi mm. xale yi ak jikko yi itam foog ñu ñëw ci parce que lu jëm ci wàllu jëw googu yaa ngi koy wax mag ñi moom yàgg nañ cee dégg ay firi kenn ku ci nekk xam nañ ci li li yàlla wax ci jëw mais terewul ñu ngi ci nekk ba léegi mais naka la ñuy def ba sunu jeunesse bi ñu récupérer leen comme nii nga xamante ni noonu la Mbaye Babacar di dundee bu ñu dundeewul lépp itam ñu def seen kéemtalaay kattan yaakaar naa ni tey dina xat lool keneen ngi ci ligne bi nga téyel ma question bi noonu mbokk ah, salaamaaleykum waaleykum bi ñu ngi ziar bi ak fooy woote maa ngi wàcc Tambacounda Ahmed Sow laa tudd. Ahmed Sow. waaw. Tamba yow rek la ñuy déglu Sow Poulo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa ngi en direct Ahmed. bismillah. waaw Adja Mbaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ah, fay Ahmed Ahmed Souad. Mm. Eh, Seydou ah macha allah macha allah Thierno Ahmed nañ def hmm. eh, hmm. hmm. ak coono tey moom du ma la làkk pël olof laa lay ñu ngi lay ziar bu baax. wallaahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di am mbégte bu baax baax ci yéen. dëgg la dëgg la. palato bi palato bu riis la. ndeysaan jërëjëf. ñu ngi koy ziar ci yiw rek lañ ko xam. ñu ngi delloo ziar. ci mbaax ak ci émission yoo xamante ne saa yoo ko seetaanee am lu yokk ci yow. ndeysaan jërëjëf jërëjëf Sow. Euh, waaye tamit ki nga xamante ne moom ngeen di woowee jantal maara ku ko déglu. Mm-hmm. da nga xam ne kii doomu daara la. Mm-hmm. da nga xam ne kii nit ku ñu yar la. Mm-hmm. nit ku ñu defar jikkoom la. dëgg la. Euh, waaye Cheikh Ido Wali tamit. nit la boo xamante ne def na ci diini bi lu bari bari. moom taay nañ ko présenté àdduna. donte xale la. <laughs> wallahi ndeysaan. gas na fi ay teen. wallahi tabax na fi ay juma. wallahi te yar na ay mbokkam yëpp delloo leen ci diine lislaam yaa ngi reere sama ndekki de damaa bëggoon a ñëw ci moom ba mu yaakaar ne xaw ma ko. <laughs> non nit la boo xamante ne li mu liggéey bari na yàlla na ko yàlla lafal cat. allahumma amiin. allahumma amiin waaye dara gënul rafet dara gënul baax. ndeysaan. ay xale yu ndaw yoo xam ne dañoo bàyyi lépp. Mm. lépp jëmale seen bopp ci yàlla. xam mm-hmm. na diine lislaam. Mm-hmm. E, seen bopp ba pare yar ci njaboot. dëgg la. donc yàlla na leen yàlla defal jàmm. am ñu mbégte bu baax. ndeysaan ñoo gën a kontaan mais suñu sañoon émission bi fii lay nekk ba heure dog. déedéet kay. <laughs> parce xam naa ñi fi nekk li nekk seen bopp yi Sénégalais yi soxla nañ ko. dëgg la wallaahi dëgg la. kon nag du ñu téye ligne bi lu bari dañu leen di ziar bu baax. jërëjëf Sow ñu delloo ziar bu baax ñaan yàlla yal nañu yàlla nangulu ci suñu jaamu yàlla. amiin amiin wa iyaaka. tamit baal ñu suñu bakkaar. allahumma amiin allahumma amiin ñu bokk jërëjëf jërëjëf sant wi rek la yàq dégg nga <laughs> sama sama xarit la sama wala Ahmed Souad macha allah. waaw euh, nit ku baax. moom mm. macha allah te xëy na li muy seede yëpp wallahi damay wax ne fii àdduna moom li yàlla wax ne man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha. Mm-hmm. fii lu waay def sa bopp. dëgg la ku def lu baax sa bopp nga ko defal. Mm-hmm. ku def lu bon it sa bopp nga ko def. waaye dafa nekk dafa wax loo mm-hmm. xamante ni dafa nekk euh, ñu am ci ay écho yu wér. ne euh, alwali mi doxam yëpp ci lu jëmale diine kanam la. di dugg ci dëkk yi nga xamante ni amuñu moyen di fa tabax ay jàkk di leen ko jàppale di dox relation yi alwali day jël ba jël ay juróom di ko maye moo tax ma ne ko fi mu nekk korite gi yaa ma yoreel xar day yëkkati ay juróom di ko maye mais di tàggat xale yi ci diiney lislaam di ubbi ay daara macha allah fa tabarakallaahu di jàngal xale yi di def ci ñoom xam-xam te jubluwu ci am benn dërëm nit ki nag moom li nga xam ci moom da koy seede te yàlla sunu borom tax donc na ko ñëpp ñaanal bu fa duggul woon mbokk mi damay bàyyi ba fin wu émission bi ma soog cee dugg na ko ñëpp ñaanal yàlla gën ko jàppale yàlla na ko alxuraan wattu euh, yàlla na ko alxuraan fay ni mu koy wattoo euh, ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alalam ak léppam daf ko jël delloowaat ko alxuraan kon yàlla na ko yàlla fay waaye ba tey ci wàllu jikko yi jantal maaraam ngi la bari na ay xale yoo xamante ni dañuy dund comme moom looy wax sunu jeunesse bi waaw jeunesse bi moom li ma leen di dénk rek mooy dénkaane yàlla yàlla moom mm. yàlla ki mu njëkk a dénk moom mooy yonente bi mm. yàlla dafa xool yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko yaa ayyuha nabiyu ittaqillah mm. yow yonente bi ragalal yàlla mm-hmm. te day gis ñun tey suñu jamono mm-hmm. bu la nit xoolee ne la ragalal yàlla sax nga foog ne moom daf laa yeb dëgg la bu la nit xoolee ne la ragalal yàlla nga foog ne yow sax da ngaa bon da ngaa sànku or que yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xool ne ko yaa ayuha nabiyu ey yow yonent bi ittaqillah ragalal yàlla ndax ragal yàlla mënta doy mm-hmm. Mm-hmm. ragal yàlla mënta doy moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mës a toog benn bis ne yàlla damaa bëgg nga conseillé ma mm. damaa bëgg nga conseillé ma mm. yàlla ne yaa yàlla ne ah loo bëgg ma conseillé la mu ne ko waaw mm-hmm. yàlla daal di yónnee jibril alayhi salaam daal di wàccee ci moom ay aaya mm. ne yow yonente bi wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah mm. yow muhammad maa ngi lay dénk ndénkaane woo xamante ne ni moom laa dénkoon ñi la jiitu woon mm. ñoom ak seen yonent maa ngi la koy dénk yow ak seen ak soo xeet mu leen an ittaqullah ragal leen yàlla kon alshabab muy ñun ndaw ñi wala ndaw ñi sax laay wax wala doomu aadama yëpp Mm-hmm. yàlla def leen dénk lan ragal borom bi subhaanahu wa taala beneen bi mooy dund sa diine mm. te yonente bi alayhi salaatu salaam nee na juróom mm. du ñu gis tàngooru yawmal qiyaam mm. ba muy lim xadis ba kaka ñetteelu mu ne wa shaabun nashaa fi taatillah ak jeune boo xamante ne nii dafa màgg rek ci jaamu yàlla mm-hmm. gimmi rek gëm yàlla gimmi rek jub gimmi yi sopp jumaa yi sopp alquran sopp lu baax yonente bi alayhi kooku du gis tàngaay yowmal qiyaama mm-hmm. ndaw yi ñi tam am nañu référence ci mm-hmm. islam mm-hmm. ndax ali ibn abi talib xoolal ali ibn abi talib jour bi nga xamante ne omar ibn xataab mu ngi wër mm. ne day rey ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm. daa di jaaseem daa di jaaseem di wër yonente bi alayhi salatu ba ñëw ci daarul arqam ibn abil arqam mm. mu daa di fëgg mu daw ah, mu ne ubbil leen ko su ñëwee bëgg jàmm ñu may ko jàmm su ñëwee bëgg ay man ali maa koy rey ci sama jaasi yi mm-hmm. xoolal seen diine li mu leen jaraloon ñu mu leen jaraloon kon jeunes yi dañoo war a xam ne adduna bi mm. wallahi yàlla binduñu ngir caaxaan wallahi yàlla mu ne afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan mm. wa annakum ilayna la turjaun am na solo ndax da ngeen foog ne dama leen a bind ngir caaxaan wallahi yàlla bind na ngir caaxaan. wallaahi mais baax baaxaay goo xamante ne chaque ak noo mënti bone. Mm. yàlla bëgg na la. soxlawul kenn. yàlla dafa wax ci benn aaya boo xamante xam-xam yi yëg yàlla ci seen xol buñ ko wax dañuy jooy. Mm-hmm. yàlla mu ne yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim et yéen sama jaam yi nga xam ne tooñ ngeen seen bopp yàlla sama jaam yi tooñ seen bopp bu leen mës a ñàkk yaakaar ci man. inna allaha naka yàlla yaxfiru dana jéggal ak dunuba bàkkaar yi jamian mboolem seen yàlla na ñu ko yàlla defal te yàlla xiir ñu ci tegu ci yoonu siraatal mustaxima su ko defee rek ëllëg mu war a mën a doon noflaay ci ñun may nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Adam Guèye nekk fële ca Suède maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane euh, di sœur ci Sali Ndaw waaye doomu ndeyu Anna Afia Euh, euh, Adam maa ngi nuyu bu baax a baax Gaye Ndioro nuyu waa Suède yëpp rawat na sama mbokki Gambien yi Aji Savané ma nga Danemark maa ngi koy nuyu bu baax a baax fàttewuma ki nga xamante ni euh, mooy Seyfaya macha allah kor mu niiru alami maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane waaye kontaane ki nga xamante ni mooy ay Aysatu Saada mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko ala asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu bi ak fooy woote. Fatou Bintou Khalifa. Fat Bintu Khalifa. waaw di kontaan bu baax suñu xarit boobu ngeen invité. di Mbaye Baba Jantal Mara. ndeysaan dañoo kontaan tey moom depuis quinze heures ba tey ñu xaar émission bi. dëgg la dëgg la. mais euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax. amiin Fatou jëm ci kanam. vraiment. Mm. Euh, ndaw bu bëgg seexu na Tidiane la. ndaw bu jël Serigne Babacar teg ko ci kaw bi moom xam nga mu koy waxee. <laughs> moom moom daf ñuy bëggal. donc euh, suñu mënoon sax jox euh, réew mi yëpp wootee dinañ ko def. ndeysaan ndeysaan ah dañ koy ñaanal yàlla rek. yàlla moo xam ni mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. amiin amiin ci barke Serigne Babacar ci barke Cheikhuna Tidiane. kontaan nañu bu baax a baax a baax jërëjëf Fatou Bintou jërëjëf ah, voilà ñu ngi lay nuyu bu baax a baax émission baax a baax. merci beaucoup kontaan nañu bu baax a baax. Ah, ok merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup Fat Bintou. <laughs> Euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ni lii dafa neex mais euh, Mbaye Babacar. Mhm. il faut nga ñëwal ma lan moo la lan lan moo la initié ci lii. dañ la ko yare da nga ko màggaale. yoon wi nga jël nii. ba macha allah avant émission bi sax nit ñaa ngi woote naan xanaa duñu commencé. effectivement la lan moo waral loolu. waaw Omar Diakhaté mu ngi la koy wax sànq. waaw eh, Alaaji Ousmane Ndiaye mooy sam papa. Mm-hmm. maa ngi nuyu waa Kër Ayib Ka famille. Mm-hmm. fi ma dëkk sama origine. Mm-hmm. nous sommes des Saloum Saloum. ñu ngi dëkk Kër Ayib Ka. Kër Ayib sama papa fa la dëkk. xaafisul Qur'an la. ndeysaan saoudien jël ko yóbbu ko Arabie Saoudite mu def fa vingt cinq ans. bi muy ñëw vingt cinq millions. la jënd ci ay téye te étudiant la woon. Mhm. indi ko suñu kër daaree kaamil la woon donc man ci daara laa judd. macha allah daara laa xam. Mhm. gëstu laa xam baabul intixaat lam yux lax di gëstu. Mhm. lu ñu jàng bariwul waaye Pastef ak yitte rek. Eh, ki ma dalal lax dëri alxaaji Pape Ndiaye. di sama ndijaay. di sama xarit. dalal ma Ousmane wiyu ñu jaar Touba jàng fa naxjul xadaa yi jàng fa tasadoo sixaar jéere téere mag ñi yëpp Oustaz Abdou Sayid Gueye bu mhm. Italie Abdou Sayer Gueye. Mhm. maa koy nuyu bu baax a baax mon frère. ku baax ku baax. ibnu Alhaji Moustapha Gueye. nga xam ne le 20 février bi. Mhm. la ñu waroon dem Italie ca Bergamo. ñu waroon taxawee benn programme. waaw. mu ne ma maa lay yóbbati invitation. ndax man maa la bëggal sama bopp. ndeysaan te fu ma ci àdduna muy Amérique Europe Asie fu ñu mën a dem. maak yow jantal Mara maak yow ba si kanam yonent bi. maak yow ba si Fès. ci Cheikh Ahmed Tidiane. ma ko nuyu de passage. muy defee orientation. boo duggee YouTube doomu Taïba boobu. Mm-hmm. fa tabaarakallaa nee naa ne la alxaaji Moustapha mën na toog noppalu. Mm-hmm. parce que kat alwalat mm-hmm. alwalit alwalat sirrul abi sirrul abi donc loolu mooy a ngi léebante ah, waaw dama ko tudd waaw alwalat sirrul daal di ko accéléré alwalat alwalat ci alxuraan mooy doom sirrul abi mooy mbootu baayam Abdou Sayir mooy mootu alaaji Moustapha Gueye lam doon def rek lay def mm-hmm. Mm-hmm. kon donc alaaji Moustapha maa nuyu mm-hmm. di ko ziyaara yal na ko Qur'an yu leer boo ko dégloo rek fa tabarakallah boo dégloo Abdou Sayir Sayir di ko gis nañ orientation yi parce que nous avons fait notre vie comme Ozar O comme objectif S A comme actionnaire R comme résultat te suñu réussite mooy dajale jeunesse bi je suis je suis porte-parole pour cent jeunesse des Tijanes. Mhm. ñu wóolu ma xale yi sama doom yi. Mhm. dañuy dañuy jooy ndax man. Mhm. su ma wooyee ñu jooy. bu may jóg plateau sama essai dama mooy orienter jeunesse euh, mbokk mi mooy doon defe naa est-ce que téléspectateur bu mujj su ko defee ñu gën a mën a waxtaan. Euh, mbokk asalaamaaleykum. gars yi dinañ ma mere wala ma rek allo. allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah. Eh, Azam Mbayang. waaw sama sëriñ maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. tur bi ak fooy wootee. man maa ngi tudd Kalidou Ndiaye. Kalidou Ndiaye. Haji Kalidou Kalidou Ndiaye. rapidement sa participation gaaw. Eh, maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf Ndiaye. di am contentement bu baax. merci beaucoup. di nuyu sa invité yooyu mooy Ilwali Badara. waaw Alwali. Mm. ak euh, Jantal Mara mm-hmm. te di wax ne macha allah Sénégal allo ñu lay dégg bu baax waaw ma ne ñu ngi rafetlu émission bi jërëjëf ñu ngi leen di ñaanal tamit Sénégal yàlla may ñu jàmm amin amin amin ñun Sénégal lii lañu soxla Sénégal wéeru koor émission yu mel nii ndeysaan macha allah ñu ngi ñaanal borom télé bi ndeysaan mooy suñu pap El Hadj Ndiaye. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi ñaanal tamit suñu yaay euh, Marème Ndiaye. Mm-hmm. ñu ngi nuyu Sénégal yëpp. jërëjëf Ndiaye. di nuyu mbokk yëpp. jëf Ndiaye. di rafetlu bu baax a merci beaucoup ñu woote nañ fi dégg naa fi suñu mag Ahmed soo woote na. ndeysaan ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñun soxluñ sax di wax ci tele wante dafa nekk loo xam ne il faut ñu dugg ñu wax parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk dëgg la wallaay dëgg la ñu ngi ñaan ci réew mi tamit yàlla wàcce fii jàmm amin amin ñu bokk ndeysaan ah, jërëjëf eh, Thierno Ka li di ñoom ñu ngi koy nuyu te di ko ziar mm-hmm. ñaan borom bi subhanahu wa taala ma macha allah mhm. xam nga boo boolee ñaari nit ñoo xam ne a xat tey man <laughs> dama réer complètement <laughs> parce que mooy man man maay moom donc ñi ko xam dañ maa xam ñi ko ñi ko xam ba pare da ngeen nekk nit ñoo xamante ne nekk ci xoli jaam ñi ndeysaan dëgg la macha allah fa tabarakallah nit ñi dañuy yaakaar xale yi des dañuy mm-hmm. yaakaar ne mm-hmm. musique <clears throat> wala mode fecc bu bees mm-hmm. wala kii loolu rek mooy doxal àddina ñooñu la war a bëgg or que yéen ci seen wàllu bopp da am ay nit ñoo xamante ñu ngi bàyyi xel diine mais surtout mission bi ngeen am dafa am solo. Euh, alwali wax na ko. mooy orienter la jeunesse. yóbbu leen ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu loolu lu yéeme la lu rëy la lu ma frappé la frappé la ah. waaw almuhim comme comme ni ko jantal Mara waxee léegi rek. Mhm. yonente bi alayhi salaatu wa salaam. sallallahu wa sallam. ku ko xam ko. Mhm. Mhm. yaani yonente bi boo jàngee jikkoom sax ci téere yi. wallahi nga jeex sa xol see ci moom. yonent bi dimension bi dafa rëy. Hmm. kenn mënu ko wax ali sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam moom loolu ngay mën a wax sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan mais jeunes yi euh, la mu dañ naan la muy saf kaka ma ko xam. dëgg la foog ñu màcc kan mooy. yonent bi kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng kan mooy yonent bi. Hmm. nan la doon lekkee nan la doon naanee nan la doon solo nan la doon waxee nan la doon dundeek ay soxnaam nan la doon dundeek ay xaritam. yonent bi alayhi salaam dakaa yàlla dakaa xool nag yow. Hmm. wa in tutiuhu tahtadu ku la wasallam eh, saxaaba yonent bi alayhi salaam dafa mës a wax saxaaba yi boo koy wax sax yow da ngay bëgg yow am na lu may yëg moom instant bi <laughs> loolu laa gis <laughs> yonent bi alayhi a wax saxaaba yi yàlla nee na aljanna lu ne da ngeen kaa bëgg mm-hmm. saxaaba yi dem ñibbi seen kër mm-hmm. di xalaat waa koo gisut noo koy bëggee mm. koo giwut fajar daal di jot ñu daal di ñëw yonent bi waaye yéen de seen bët yaa ngi xonk coy mu mel ni biig ne la woo rasulallah ñun suñu kër ci kër ci kër ci gi yëpp suñu julli yeek suñu wóor yëpp bëgg dugg aljanna la mhm. te yow nee nga yàlla nee na du ñu dugg aljanna lu dul dañ kaa bëgg wala dañ kaa dañ kaa yaani dañ kaa bëgg mhm. nu ñuy bëggee ku ñu gisut mhm. yonente bi ne ah loolu moom de la wax yàlla daal di wàcce aay bi qul in kuntum tuhibbuuna allaha su fekkee ne bëgg ngeen yàlla fattabi'uuni topp leen ma man Muhammad yuhbibkum yàlla bëgg leen wa yaghfir lakum dunubakum mu jéggal leen seen i bàkkaar mm-hmm. kon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ko nag xam nga bëgg nag inna al muhibba lil muhibbi mm-hmm. muti'un loolu arab wax nit ki soo ko bëggee da nga koy roy da nga gis tey star yi nga xam ne ne ay star lañ mm-hmm. xale yi leen bëgg dañuy topp nu seen colin seen waxin yëpp mën nañ ubbi téléphone bi bàyyi ko ah, parce que dese nañu peu de temps kadalik yonent bi alayhi salatu wasalam su fekkee ne yëg nga ko rek war nga am lu xeeñtu exemple tey boo xoolee gentleman macha allah. waaw ne boo ko xoolee nga xam ne kii mu ngi xeeñtu yaani bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaahi wallaahi am na dafa am ñoo xamante ni. Mm-hmm. subhanallah man gis naa ab naar boo xamante ni mënoo wax tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wetam. day jóg dóor ne sallallahu alayhi wa sallam. jëlee ko ci dënnam jëlee ko ci dënnam ci xolam. moo tax benn saxaaba. dafa bëggoon yaramam laal yonent yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mhm. nag diinaar amul jékki-jékki rek benn waay yëkkati loxoom ci jàkk ji man de amel nga ba àq mhm. sahaaba nekk ne ko doo ko baal doo ko baal doo ko jéggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amel naa ko amel na ben benn àq na may fayee ko mu ne ko yonent bi mës ngay sa sa yar bi nga doon dóoree gileem bi daa di rëcc dal samay mubu dal daa di dal sama yaram damay fayee ko yonent bi ñëw leen indi leen yar bi jox ko mu fayee mhm. waa ji ne waaye jour boobu man yaani sulu mu woon mbubu mhm. damaa bëgg yow yonente bi nga yëkkati sa mbubu ba ma mën a fayeeku yonente bi sama sam daal di yëkkati yëreem saxa waa ji daa jëw song daal di koy jàpp ne ko yaa rasulallah wallahi soo dee woon sama yaram bi laalul sa yaram wallahi suma dee du ma am lu ma leer yonente bi ne ko yàlla jéggal na la baal na la say bàkkaar boo dee dugg aljanna est-ce que waxtaan ci moom sax dafa neex mbokk asalaamaaleykum allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Mbaye ñoo ngi lay nuyu. nax nu kazaalika mbokk. waaw ñun la Jibi Guèye ñu ngi fii ci Espagne. Jibi Guèye depuis Espagne. waaw ñu ngi fii ci Espagne ñu gis seen xarit boobu ngeen dalal ñu kontaan ci nag. muy kan ci. muy Mbaye Babacar moomu toog. Mbaye Babacar. ndeysaan Jibril. waaw jantal Mara. ndeysaan ay ca mi ngi lay dégg ziar baax a baax. waaw ñun la Jibi Guèye. ndeysaan. Mhm, waaw kër gi yëpp a ngi lay déglu nag ñëpp a ngi kontaan ci yow nag. merci beaucoup. waaw nañ la de. fay naa leen de. waaw kontaan nañ ci trop ah, ma ne ko kontaan nañ dëgg yàlla kontaan nañ. Ah, jërëjëf yéen a ko moom je waaw ah, nga wax Mbaye ne ko kër gi yëpp kontaan nañ bu dalee ci président ba Rama Dramé ñëpp. jim jaara ñëpp kontaan nañu dégg nga. jërëjëf jërëjëf Jibi. ah ñëpp kontaan nañu nag. merci Guèye ñëpp a ngi leen di teewlu nag ñun ñëpp a ngi leen di teewlu waaye yàlla na si yàlla def jàmm rek. dégg nga amiin amiin amiin ah, na Mbaye nga nuyu ñu waa kër gi ñëpp. ñu waa gi ñëpp danañ ko dégg incha allah Guèye. ngeen nuyul ma seen patron boobu nag Alane Ndiaye ne ko dama koy bëggee nag. El waaw nekko ko jim nee na yàlla na yàlla guddal saw fan. bëgg nga ku riis amiin. waaw dafa nanguwul liggéey ma gis jom ju nekk ci moom. ndeysaan lool loolooy dëgg. Ah, ah. waaw loolu moom dama ko seetlu si moom quoi. loolu loolu moom dëgg la moom waaye waaw sama sama papa la waaye damay gis ay doxalinam si réew mi rek ci nangoo liggéey rek ci laa ko bëggee na mosuma ko gis nag. ndeysaan boo fi ñëwee di nga ko gis. incha allah waaye nee ngi koy ñaanal jàmm rek. di ko ñaanal sutura. amiin Guèye ak doomam ak ah. doomam Abdou. Abdoul. waaw. ndeysaan jërëjëf baax na xaaral ma bàyyi leen. jërëjëf Guèye kontaan nañ bu baax a baax. merci beaucoup waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni yaa nga foofu ci diwaanu Espagne Issa Diène sama chéri ma nga fa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di kontaane waa Gisona yëpp rawatina mun a gàcc ak euh, Njéeme Thiam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Gisona yëpp di kontaan ci ñoom alors euh, buntu baa ngi noonu ngeen mën ci jaar Yacine Diouf itam ma nga foofu ci diwaanu Espagne maa koy nuyu bu baax a baax soxna Yacine di ko kontaane di ko ñaanal jàmm moom jëwriñ jàmm rek lay am incha allahu taala euh, ba tey jantal ah? Mara am na yoon woo xamante ni moo la dugal ci yoonu Seydi Hadji Malick Serigne Babacar jantal Mara buy nuyoo sunu groupe sax les amis de Arona Dia ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaane eh, day wax jusitu bi moo la jusitum xayran waaw wa kufitumu wa kufitumu charran wala la xayta maa ba xayta durran defal ñu defal ñu loolu dafa am ku ñuy wax xaaji njaga waaw maa ngi nuyu baax nuyu waa daayira Lansar. bi mu dëkk daayira som hmm. daka daan dugg di ko nuyoo affaire bi play ma ma ne ko àll ma ko mu ne ma jox naa la si ndigal. ma koy def ñu naan ma borom jusitu mais boo koy boo koy nuyoo ci groupe bi day gën a gudd te li nga def fii daa gàtt. jusitu mu xayran. waaw kay. wa kufitu mu charran. Mm. wala la xayta ma ba xayta duran. asalaamaaleykum wa rahmatu minallahi taala wa barakaatuhu mama Joli. macha allah euh, en tant que jeune. Mm, danse yi nekk fii ay. Radisson ak ay ñoom seen feccukaay yi nga choisir yoon bi. waaw yombul de. société boo si nekkee. waaw. Euh, da ngay am nooy doxee. dama bëgg nga xale yi ndax ban yoon moo ci gën. waaw xam nga Serigne Cheikh Tidiane Sy Al mm. passage maa ngi nuyu. Mm. sama Serigne notre responsable moral. Mm. suñu chef de chaire a Cheikh Seydil Mouhamadoul Moustapha Sy. man j'ai pas fait les school je suis autodidacte. Ah, jàngu école déedéet. mosoo jàngu école mosuma toog ñu ne ma séyi. mais nag am naa benn moment bu may defalee orientation son prof français maa ngi koy nuyu. Mhm. soxna Roque Adja Dama Niang en face mhm. clinique Kumba. Mhm. Euh, ku baax ba dafa bëgg may làkk français. moi j'ai pas fait les daara lañ def waaye nag bu ñu waxee daara oustaz Wali. daara sakkan bu kenn dissocié daara. nekk ki jàng arabe. ak ki jàng français. kër gi nga nekk sax da nga jàng chaque bu kenn dissocié entre français ak arabe. jàng yëpp baax na. yëpp baax na yëpp baax na soxna Adja Mbaye waaye tamit jeunesse bi. Mm. toujours dañuy concentré wu si ñoom parce que dañuy xool si ñun. Mm-hmm. Jantal Mara su defee nii jeunesse bu bëri def nii parce que je suis le porte-parole 100 pour cent jeunesse des Tijanes. Mm. xale yi dañ muy déglu. Mm. sama téléphone si ay groupe kenn xamul nu mu dañ lay bëggee damay tagg yonent bi en même temps. Mm-hmm. mais nag waxuñu bu kenn dem si discothèque yi bu wax parce que man parfois Mm-hmm. bu mu tey nga xam yaay kan mm-hmm. bu mu la taxe bàyyi sa diine mm-hmm. bu mu tax bàyyi nga say waxtu juróom fonk jàngalay mag ñi man daal loolu ay conseil képp ko xamante ni yaa ngi nekk jeune boo bëggee tegu ci yoon wi macha allah fa tabarkallah yaakaar naa loolu leer na nañ euh, dund ci jamono ba yaakaar ni dootoo dee waaye nag sóoraale àllaaxira ba yaakaar ni tey ngay dee bu ma ko tënkee euh, waxam foofu la ko féetale rawatina jeune bi jeunesse bi nga xamante ni moo fi nekk alors euh, gis nga daara li muy def xam nga mënoo jàng français ba yeggal mu inculquer la alxuraan mais mën nga jàng alxuraan ci saase lu ñu wax ci tubaab nga dégg ko daara ni muy def nit am na solo de alwal waaw man damay gis ne méthode bi nga xam ne moom mooy méthode bi gën mm. ci jàngale sa doom mm. mooy nampatal ko ci alquranul karim mm-hmm. su fekkee ne mën nga ko def mm-hmm. parce que xëy na yenn saa yi mhm. nit ki ci situation boo xamante ne nii pour mu def loolu dooma exemple nga nekk ci dëkk boo xamante ne amoo kenn ku mën a jàngal sa doom alquran exemple amoo nooy def mhm. waaye gis nga sa doom alquran jiitu ci dënnam mhm. dafa am lu yéeme lu ci am dëgg la yaani yonent bi alayhi salaatu salaam sallallahu alayhi wa sallam yaani parce que yaani waxtam nga référence wëccam ci al yonent bi alayhi salaam dafa mel ne foofu mooy garage bi yàlla moom ba mu ñëwee di ko wax def ne ko iqra jàngal jàngal def ne ko jàngal mais yàlla lan la ko wax jàngal ba yàlla def ne iqra bismi rabbika alladi xalaq demal nga jàngi sa boroom bi bind mm-hmm. kon ndekete jàng lu lay xamal yàlla d'abord te loolu moom mooy diine te mm-hmm. moom mooy alquran al mm-hmm. mu jiitoo ci yow science bu ñëw beneen xam-xam bu mënti ñëw sa xol dafa mën a accepté mais bu fekkee am na leneen loo xam ne ñu jiitu alquran ci yow mm. sa xol dafay xam ab nëx parce que alquran leer la te mooy ubbi leer la ci li ma gis te lumière gis nga lumière bi xool lumière instant bi ña nga Italie nga Espagne nga France nga fi ne lu ko fa yóbbu ak lumière waaw mais bu nekkoon ay yeneen la dudul loolu fa yëpp da weesu wi la yàlla wax nuurun man wàccee naa leer ci yéen alquran leer la dafa yéene moom alquran al karim macha allah ah. yàlla comme ni ko Mbaye waxee sànq yàlla mhm. dafa tànn li gën mhm. ci ki gën wàccee ko ci moment bi gën mhm. ki gën gannaaw yàlla mooy alquran mooy kaddu gi gën mm-hmm. ki gën gannaaw loolu mooy yonente bi li gën ci jamono mooy euh, ramadan ramadan lu ci gën mooy guddik laylatul qadr benn guddi goo xamante ni quatre vingt trois ans lay représenté yoo xam ne da nga kaa dund jaamu ko yàlla yàlla nangul la ko bis buñ ko fi jotee gi mayee incha allahu mm. taala dinañu àndandoo ak moom àndandoo ak ñoom sax la ñuy def ñu tojal ñu lay laylatul xadar euh, ñu defaat ko beneen plateau waxtaan parce que xam naa ni mm. man duma doyal ci lii nga xamante ni moom lañu ñu yëkkati tey mm-hmm. euh, ci nekkin bi euh, jullit yi ni ñu war a nekkee fi ñuy jeexalee rek mooy ci wàllu dimbalante mm-hmm. waaye balaa maa sori may nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni mooy soxna maam say Fall soxna maam say Fall ñu ngi ko duppee soxna maam say Ndiaye bu maam Cheikh Ibra nee naa ko nii rek ngay mën a mel soxna maam say fall ñaan gi yegsi na tabarkàlla macha allah dafa may bàyyi xel bu baax a baax te it nag mooy doom ji nga xamante ni dafa jël njureelam euh, jëndee ko daan doole takk ndiggam di dugg ci avion yi di yéeg di wàcc te di ko sellal kon euh, soxna maam Sey faal bu Chérif Assane Fall bu maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaar jigéenu Cheikh Fall boobu lay di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla bàyyi ko ci sunu kanam yàlla defal ko jàmm ni ma ko la ko waxee rek dangaa jël njureel géeg lépp waroon na toog ñu di la ziyaar nga ne déedéet damay takk sama ndigg daan sama doole parce que ñaq jariñu laa doon ci sama maam Cheikh Ibrahima Fall kon noon lay doxalee kon maam Sey Fall euh, mi ñu duppee maam Sey Ndiaye gàcce nga ma yow jaajëf kenn du yow euh, lan la ci wàllu yërmande nag. ndeysaan ñu yërmante ñu def ko benn cinq minutes boo xamante ni. parce que ndege ni sii daaw nag fekk corona bi soog a egsi fi def ay weer lu waay amoon joxe nga ko. lu waay amoon ci lu baax yaa ngi ko doon génne di saraxe ko di fi yëf corona bi am fi un ñu mis ko euh, ñu ngi may temps bi jeex na eh, jeexalaguma ah, parce que 40 laa jëm. <coughs> looy tàggoo côté boobu. <coughs> pamaay man la man la Mbaye ak dégg nga. <laughs> alal birri wa taqwa mhm. wala taawanul bil isni mhm. suñu borom tabaraka wa la day wax ni dimbalante mhm. ci li gën mën na ngeen dimbalante dimbalante si lu baax dëgg la sa walit dimbal nag bu ñu waxee jàppalante sur le plan solidarité Adja Roxe Daba Ndiaye Koundé lu borom madame la coordonnatrice. Daba Ndiaye Koundé. Euh, tey anniversaire ma koy happy birthday. ah anniversaire sama sœur ak Mm-hmm. ak social dañoo créé benn. te yàlla tax mm-hmm. bu tudd mouvement solidarité. Mm-hmm. éthique et travail et solidarité en même temps éthique set. et travail ak liggéey. parce que liggéey ak jaamu yàlla charia la ak xaqiqa la. waaye tamit dafa am benn philosophe bu wax l'homme est naturellement bon mais c'est la société. qui fait de l'homme ce qu'il est. ce mais en même temps. lu ñuy wax. Euh, la la dépravation mhm. nit day baax mhm. yaru juddu mhm. amul benn problème set waaye société bi mooy li koy yàq moo koy def li muy doon moo waral solidarité solidarité mën nga si ajouter oustaz alwalit bi ngay juddu minal mahdi ilal lahdi la ñuy waxoon booy jàng waaye boo juddoo di nga soxla solidarité aja ñu teewu la tatagal la tudd la Mhm. ngénte ñëw ki indi 1000 francs ki indi 2000 sur le plan solidarité. solidarité daal di même booy ñu lay jébbal sa borom sax. Mhm. solidarité day ñëw nit ñi dañuy ñëwaat booloowaat. Mhm. ñëwaat jébbal la sa borom. ñaanal la. kon solidarité. ala kulli xaalin ci jeunesse bi solidarité ci union. l'union fait la force. l'union fait la force. al jamaatu rahma. te bañ koo yemale rek ci weeru koor sax nag. bañ koo yemale ci weeru koor waaye nag moo gën. ndaxte yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam ci chahru ramadan bi daan na moom ak saxaaba mi daan yokk lañ daan def mm-hmm. ci li nga xamante ni mooy kii mooy mooy euh, lu baax lu baax mm-hmm. social mm-hmm. xool ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañoo wàññeeku ñu leen di dimbali faqiir yi ak ñi nga xamante ne ñooy miskin yi daan nañ ko gën a doubler ñi jël alal seen alal yi def ko ci compte banque yi c'est des milliards te nit a ngi dee ci hôpital régional ci hôpital ci ordonnance yu 17500. Mm-hmm. lu mat a bàyyi xel. te bu dee nga dëjee ko sa dëju 100000. macha allah comme li gentleman la wax léegi allah gis nga mm-hmm. doomu aadama ci ak matadi. Mm-hmm. nit mënta demal boppam. déedéet déedéet moo tax booy jàng alquran da nga gis ne yàlla wax na yaa ayyuha alladina amanu 89 fois. waaw. wax yaa ayyuhan nas lu mot ay cinquante fois mais bu ñu wax yaa wala six wala ñaar wala ñett. bariwul. kon yàlla dafa woo nit ñi ci ñu nekk ay yaani bennoo mm-hmm. yàlla mu ne jaalnaakum umma man maay ki leen def ab xeet te pare yàlla waxaat ne wa taawanu comme ni ko wa taawanu ala albirri wa taawanu yàlla daf ne dimbalante leen man aja dafa am lu moo metti mm-hmm. li ma metti mooy borom milliards yi ñoom sax laay waxal nag mm-hmm. borom milliards yi ay waay génn seen milliards yi joxe ko fii sabilillah wallahi boo rombee ci mbedd mi yaa gis ko xiif yaa ngi gis ku rafle yaa ngi gis ku taq mm-hmm. yaa ngi ku tilim yaa gis kuy mi yaa ngi fanaan koo xam ne gis koo xam ne ni mille francs la la soxla mu man bi ma gën a metti mooy li ma mën la concevoir man gis koo xamante ni amul douche subhanallah daf ma metti man dama ne toujours damay ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may loo xamante ni mm-hmm. dinaa mën a def benn nit ma defara ko douche ah, dégg nga daaw projet douche daaw daaw hmm? projet douche projet douche waaw man man projet boobu la am yaa ngi may dégg tëddal fu bon lekkal lu kii mm. mais toilette suturlukaay la. dafa am benn dëkk boo xamante ne macha allah dañ fa mm-hmm. ay ay ndimbal yu ñu fa yóbbu woon. Mm-hmm. ci benn nit ku baax sax moo ñu yebaloon ñu dem fa. waaw mais benn góor daf maa woo wallahi ay rangooñam ñu ngi tuuru. Mm-hmm. xam lu ma wax. mu ne ma alwali xaw ma kañ laa gëj a mos tàndarma. sama yaram bi da doon daw. xoolal ñun fii tàndar ñu fi ñu fi yàqu fi Dakar léegi sax tàndarma yu paquet yi mu ngi naan xamul kañ la ko gëj mos. te gëm naa bu ndimbal loolu dama loon ci dëkk boobu noonu. ah nii mën na am ñu mu nekk lu yéex ñu yéex cee jot ci yu mel noonu ñaanam yàlla na leen topp ndax xam naa ni ñaanal na leen nit ñi bëgg nañ ku leen dimbali waay nit ñi bëgg nañ ku leen dimbali mm, mm. Euh, sànq Ahmed moo ngi ko doon wax ci wàllu teen yi nga xam ne ni gas naa ko mm. ni am na ay dëkk yoo xamante ni ñi loo tax nit fa gas fa teen mooy ay jigéen seen ëmb mu ngi yàqu ndax ndox mu wex ak yu mel noonu te nit ñi dañ leen di seetaan ci loolu nga dem gasal leen non man am koo xam ne dafa am fooy jaar parce ah, que ñoom fa ñu war a jaar ñoom xamuñu ko xamuñu ko nga jaar fa dimbali leen ci loolu tey jii bu ñu fi jóge woon tey jii da ngay gis ku ñëw sama kër ne ma nan laay def ba dem ba gisanteeg alwali pour mu jàppale ma donc yëfi chemin la doo yor mais nag di nga ci woon yoon woo xamante fu ñu jaar ayca moom daal ci gàttal yonente bi alayhi salaam nee na mm. kenn si ñun du gëm yàlla mm. lu dul ne dafa bëggal moroomam jullitam li mu mm. li axihi ma yuhibbu jullil fanaanal naafila mais su fekkee kii bëggoo ko bëggu la bëggoo ko yaa ni ne sa jaamu yàlla go demul ci asamaan ku jaamu yàlla dem ci asamaan day bëgg nit comme ne moom fonk nit comme ne moom yërëm nit comme ne moom yonente bee ko wax te doo xantu yàlla hmm. moo ne ko wa maa yantiqu anil hawa wax maa ko wax jaare fa kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te leen di ziar di ñaan yéen borom bi subhanahu wa taala koor gi yal nangul yal na yàlla may ñu incha allah woor ko ati at yow tam Adja maa ngi ñu ngi lay nuyu xam ne su ma limee benn nit rek nuyu ko wallaahi dina am ñu ma mere hmm. dëgg yéen samay soppe soppe ndax ne man ku ma bëgg bëggal ñëpp hmm. ñi lay topp ku ma bëgg man kese bëggoo ñeneen ñi wallaahi bëggoo bëgg ma bëggal jantal maara bëggal ajaa mbang bëggal ñëpp fii sabilillah ma xam ne li nga ma bëgg man dëgg la waaye beneen ma nga bëggal man kese loolu bëgguma ko kon maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla saxal plateau bi ajaa tam yow tam yàlla sàmm la aar la saxal la ci kër gi yokk say ma insha allah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax alwali sow ñu ngi bëgg a yàgg macha allah man ak moom waaye nag euh, tabarkàlla zéro faute mm-hmm. man nit kuy dimbalee man dama koy bëgg nit koo xamante ne damay gis ne def na nangam te jëmm yàlla rek tax man dama koy bëgg waaye kenn du Pa Omar Dieng mi nga xamante ni lii yëpp moo ko coiffé tàggool foofu laay duggee. waaw Papa Omar Dieng nga xamante ni mooy Baba Ndiémé. waaw ci sabab def déclaration bu rëy bi. jàng Baba xoolee àdduna réseaux sociaux yëpp. Mm. vidéo am la ñuy vu naan kii kan la ku ñàkk keñaan kii kan la. Mm. kan moo bëgg exposé Jantal Mara. ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage. nuyu bu baax sam papa Babacar Sy. Mm. fi ma jógee Sébi maa ngi la ko wax. pour wàññi yoon bi xaaji Abdoulaye euh, Abdoulaye Dial. di sama papa këram laay nekk. fa laay defee lépp. doomam lay àndal. Mhm. muy euh, Assane Diall. Mhm. di ko ziyaare bu baax a baax. nuyu maman Fatou. Mhm. nuyu madame Ndiaye nuyu sama yaay. nuyu ñëpp xam naa ni moom li ma am ci ay yaay waaye mënul ñàkk. sama maman maître Ngone Faye. munul ñàkk ma nuyu ko ziar ko jàppale na ma a fa tabarakallahu rawatina maître Seynabou Diaw Faye ca Thiès moom tamit di ko nuyu bu baax di leen mm. ziar sama yaay yëpp ma maa tàkk Louga mm. nga xam ne nee na ma day yar ay ginaar mm. ba mu màgg mu ne ma maara ginaar yi mat na Mm-hmm. yow rek yaa ko war a lekk. ba période bi waa mi ngi waaj a am. Mm, fu ñooy dem maa ma am fii xar am fii ginaar allah <laughs> waaw kay su ma neexee lu ma neex laay def. Mm-hmm. waaye jaajëfal bu baax a baax sama invité yi macha allah ndaw nii lay mel ñoom ñaar ñëpp ay jeunes lañu mais la macha allah ci lu baax la ñuy dox ci diina la ñuy dox. jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni nag mooy Racky la reine di Bazin nekk fële ci Kër Massar ni ma leen ko waxee euh, ñàkku rab euh, euh, Bazin yoo xamante ni tabarkàlla macha allah. Euh, à bas la koy jaay te it nag euh, euh, jasner gënu koo riche macha allah mu defal ma nii dox ci nii ak ñaw beek lépp ngeen mën ko am ni ma leen ko waxee 77 352 62 50 352 62 50 waggi kañ nga daan ñàkk deseeree nii ay waggi xolu ki ñaan dugg na la di sama ñaw la daaneel waaw kay. Racky moo jaar fii ci numéro bi comme ni ma leen ko waxee may gërëm ñëpp di sant ñëpp Pa Omar Dieng moom dañ koy bàyyi ak mu bàyyi yàlla ak euh, waa groupe les amis de Harouna ci jiital Mousli Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaye itam jaajëfal sama invité yi yàlla na yàlla nangul leen seen koor yàlla defal leen jàmm def leen ay magi lislaam nag ndax ñu ngi ci yoon wi yàlla na ñu yegg yàlla bu leen dara fakkatal ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax baax rendez-vous incha allah samedi prochain euh, yeneen ni invité beneen thème ci kattanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi fi amaanillah jaa ngeen jëf jaay Seydil Wujudi Sénégal